moo di Espagne te ñoom nag ñoo ciy gën a lorul nee na rek téeméer fukk ak juróom-ñetti candidat teg nañ leen loxo ca waaxi ndar yi Vox Populi nekk pourtant nag bërki démb rek teg nañ loxo ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaari doomu armée yi nga xamante ni ay candidat lañ à l'immigration ñu leen tegee loxo foofee nga xamante ni moo di ca Louga tribune yéene kaay sampub laaj ndax jée yi am ci géej gi ak ci tali yi ndax loolee xar fa foofa dugg si mu waxi tamit si ndaw yi nga xamante ni danoo ñàkk li nga xamante ni moo di espoir ci seenub réew ca jamono jooj nag libération dellu si waat ak ñun si juróom benn fukk ak ñett ñetti sénégalais yi nga xamante ni ñoo faatu woon ci waaxi Cap Vert te seen gaal jóge woon fa nga xamante ni moo di ca Fass Boy ñoom nag ñi ngi nettali anam ni noonu la jéye na ku ne juróom fan ñi ngi biir géej gi seen moteur gaal paan ñi ngi doon sax a joow li nga xamante ni moo di gaal gi waaye ñoom nag dañoo réer ba noppi xiif di leen rey ñaar fukkeelu fan bi lañu jàpp li nga xamante ni moo di benn mbonaat ci géej gi ñoom nag togg nañ ko lekk waaye ñoom it suuruñu ñi nga xam ne itamit ni dañ doon faatu benn par benn ñu leen di sànni ci biir géej gi nee na nag ñu ëpp ci ñoom dañ doon cëppeelu ci géej gi di lab am na ñaar ñoo xamante ni nag dañoo dofoon ci ñoom ban leen doon jàpp leen yeew ci gaal bi ngir ñu bañ a yëngatu source a ca jooju dikkaat ak ñun wàllu politique bi neen fipp yi nga xamante ni ñoo nekk ca parti socialiste tey jii ci alxamis bi la ñuy xam li xamante ni moo di seenub ëllëg ndaxte tey lan leen convoqué ca fa nga xamante ni moo di commission de discipline bu parti socialiste bokk na ci Boubacar Baldé di Sarkozy moom mi nga xamante ni moo jiite fipp yooyu la a Ndiaye Ibrahim Camara Amadou Sow Niokhoba Diouf ak Moustapha Dieng ñoom ñëpp nag tey jii la ñuy xam seen ëllëg ci parti bi l'observateur ñëwaat ak ñun ca remaniement ministériel fësal bi nga xamante ni war nañ koo amal fan yi ak candidat benn bokk yaakaar bi nga xamante ni Macky war na koo fësal journal bi ne Macky Sall bii mooy virage bu mujj ba noppi te day waar ay nit ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc wàllu ñi ngi wan yan nit lan war a jël ngir ñu jeexal mandaaw Macky saal bi lee l'enquête moom dafa amum njaaxle ni benn bokk yaakaar ay weer rek moo des ñu amal li nga xamante ni moo di élection présidentielle kenn xamagul kenn mooy jiite coalition moo tax ndax benn yaakaar def ni benn sigil Sénégal te pourtant ñi nga xamante ni ñoo bëgg nekk candidat coalition ñoom nag ñu ngi ci terrain bi am na sax ñu commencé battre li nga xamante ne moo di campagne yi bokk ni te pourtant 2012 Niass ak Tanor-Dieng ñoom ñaar ñëpp nag moo di Macky fi nekk tey njiiti réew yor-yor ni politiciens yi nga xamante ne ñoo demoon ca Magal Touba ca kër xalif général des Mourides turam moom fa rek tudd nga moo dëggal ni Ousmane Sonko ma nga sax sa stade ya ndaxte match bu am foog ñu tudd turam naan sonko sonko sonko namu naan laa sonko sonko namu nañ laa sonko namu nañ laa boobu sax moo tasoon benn match bu amoon ca stade Amadou Barry bu géejewaay ndaxte supporters dañ ko tàmbalee way rek jëm yi commencé leen dóor ay lacrymogène ba nit ñi tasaaroo ODCAV bu Vélingara di xam le ni fan yi lu ñu organiser benn match bu nga ni dégg ñu fa sonko naan laa joojee waaye loolee nag ñi nga xam ne ni dañ koy tere ci stade yi ndax bépp supporter bu ko def rek équipe ba dinañ ko amande ñaar fukki junni junni jàpp téeméeri junni président ONCAV di Amadou Kane nee loolee nag dañ koy tere ci stade yi maanaam wayu politique ak wayu diine yi bés bi la jour ñëwaat ak ñun ca ñaq yi nga xamante ni moo di ñaqub covid 19 yi nee na Sénégal bokkoon na si ñetti dëkk yi nga xamante ni ñoo gënoon am taxawaay gu jekk ci xeexu mbas mi waaye dañoo gis ni fan yi ñu nekk mu ngi sa mujjanteel ga Amadou Sy mi nga xamante moo nekk plan international nee na Sénégal moo jël avandaare ci wàllum ñaqub covid 19 mi réew mi quotidien ca jamono jooju mu dikkaat ak ñun ci cag-cag yi fii ci Sénégal nataalam mi ngi fës loolu ci journal bii di réew mi quotidien journal bi nag mi ngi xamal Seydina Aline Fall naka la defe ba dugg ci métier bi lan moo ko ci indi la mu ciy gañe ak jaar-jaaram sport ak stade yéenekaay Edouard Mendy bi nga xamante ni moom mooy góolu titulaire bu Sénégal ndax Mori jaw ak Seny Dieng nekk ñu ci ay tànkam waaye journal bi dinu xamal ni Edouard Mendy am na ak avance bu yaatu ci ñaari góor yooyu le ñu wax ci CAN 2024 stade yéenekaay dina xamal ni liste Rwanda Sénégal génn na match bi nag ñu ngi ko nal amal juróom-ñeenti fan ci weeru